بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واقلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها المستمعون الكرام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كن نجي دلو دي أبيكو تورو سنو بروم بي سبحانه وتعالى ديكو سنت ديكو مغل ديكو كنج di seede ni amul benn buur bu dul moom yàlla di julli cib yonentaam seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam di ñaan julli googu def ay leer ak i xéewal yàlla baawal ko ci yonente ya jiitu woon baawal ko ci njabootam gu tedd ga ak i saabaam ya baawal ko ci bépp jullit ñu ngi dikk ak yéen fii ci daara ji ci seen émission waxtaane xutbay seydina imaamillah il mahdi yi wassalaam te ñu leen koy amalal àllarba bu jot ci waxtu wi tabaarakallaahu ngeen ci ànd ak seen mbokk Ababacar lay ak sen mbokk oustaz Seynou lay sunu mbokk sunu xarit Makhtar lay féete ci technique bi fa tabaarakallaahu boobu ba tey ñi ngi leen di firil xutba yu tedd yi nga xam ni mi ngi jóge ci sang bu tedd di Seydina imam Laay il Mahdi alayhi salatu wassalaam muy ay wax yu ëmb ay yiw ëmb ay dénkaane waaye it ëmbi tere sang bu tedd ba seydina imaamilaa il mahdi alayhi salaatu wassalaam dafa woo jaam yàlla yi ne yàlla moom moo yónni ci yéen nit ak jinne ngir ngeen jaamu ko te sellal jaamu ko muy ku nu yàlla diggoon moom imaamilaa il mahdi ngir yërmandeem yàlla da ko dig xeet wi ngir yërmandewu xeet wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe ay tegtal ci ay dikkam wax meloom yàlla dogal fa tabaarakallaahu tegtal ya dëppoo ci sang bu tedd di imaami laa il mahdi alayhi salaatu wassalaam woote fii ci sawu jant ne yàlla moo ma yónni boo demee ci mashaarixul anwaar maa ngi lay wax ne la imaami laa il mahdi day waaliduhu alxasan al askari waajuram wu góor wa alxasan lay tudd wax la it ne nuutiyun xirfatuhu nuutiyun moom la muy yëngoo sax di ca tedd day doon nappkat téere yi wax ne ala saaxilil baxari sakkan naka Baye Ablaye Sylla la waxee ca bindam yu tedd ya ca taatu tefesu géej sax lay dëkke lii yëpp sunu boroom yërmande rekk a tax ne bu ko neexoon bañ ñoo jox benn tegtal ndax faalun lima maa yurit bu ko neexoon bañ ñoo jox benn tegtal yónni ndawam ku ko gëm mu fay la ku ko weddi mu duma la waaye yërmandeem tax mu joxe ay tegtal ca tegtal ya bokk na ca daje gu muy daje moom imaamilaa il mahdi ak nabiyulaahi isa ndax it moom it yàlla daf ko dénk digoon jaam yàlla yi ne kuy ñëw ci mujjug jamono la yonent bi wax ci xadis bu siiw ne kayfa antum isa nazala ibnu mariam fiikum wa imamukum minkum waaw yéen sama saaba yu tedd yi yéen jullit ñi waaw naka ngeen di def lan mooy doon seen taxawaay bu yont yàlla Isaa wàccoon ci yéen te seen njiit di doon jiitam waaw kan mooy njiitu jullit ñi foog naa kooku jullit boo war a laaj ne ko waaw kan mooy njiitu jullit ñi tontoom war naa yomb muy seydunaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye teewul it boroom xam-xam yi bind nañ ca wax ne yonent bi li mu jublu ci njiit foofu al muraad bil imaam huna المعدي المنتظر نينا كتشا يونت بو جوبلو وون سي سين جيت موي امام المعدي كون فتبارك الله كون بو فكنتني ني نجيتو جوليت ني دي محمد نيوات نا سي بنن تخواي سي بنن تور دي تخواي امام المعدي ورنا يومبال دغ دغ بي limaam mu wax fii ne mën a démb mën tey naar ba weexoon ñuul na yàlla moo jël ruu muhammad def ko ci sama jëm mu mudd jantu jant ya fenkat na ca saw ba lii la limaamul mahdu yu wax nga delluwaat ci téere yi fa tabaarakallaahu wax ji gën a neex a dégg يوننت بي وخات عليه الصلاة والسلام نال المعض يقطفي أثري ولا يقطع إمام المعض يدي موي كي خنتو سماي تانك تدوكو موي موك كون جلتني كي ورا دون إمام ينتي الله عيسى دون جيتم كي ورا خنتو tànku yonent bi alayhi salaatu wasalaam te du ko mooy kooku mënul doon lu dul mum mudu mu dellu si waat mu jug jamono kon wax ji sayidina Limaamu wax sunna démb layal na ko waaye it li ci ëpp solo damay faral di wax ne li ci ëpp solo ci li dëggal sayidina Limaamul Mahdiyul Muntazar ne ku yàlla yónni la mooy jëfam ndax jëfam yépp jëfu yonent la mooy jikkoom ndax jikkoom yépp jikko yonent la ndax yonent dafay ñëw fekk nit ñi nekk sa naka noonu mu dindi leen ca indil leen li nga xamante ni fa tabaarakallaahu mooy sunnatullaahi mooy sunn sa jóge ca yàlla kon lii la fi Seydina Limaamul Mahdi yu taxawe kon nga gis na ñi mu nawlanteeloon ci jamono yépp ñu baax lañu waaye ñoom dañoo ñëw fekk lanu fi li fi nekkoon ñu jàngale ca bindi téere woo yonent bi leeral waaye limaamul Mahdi moo ñëw fekk dundin wa dëppoowul ak diine mu dëppale ko ak diine moom moo ñëw fekk bidaaya mu toxal bidaaya indi diine lislaam moo tax ibnu arabi dina wax ne moom limaamul mahdi bu ñëwee sax dina am wuute ak borom xam-xam ya ndax borom xam-xam ya dañuy bind di teg ci ijtihaad waaye moom bu ñëwee walahu malakatul ilham moom dañ koy wax yu muy wax kon fii la seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam wuute ak fóoree moom yàlla daf ko yónni kon ba mu ñëwee mu jëf jëfu yonent am jikko yonent wax waxu yonent ñëw na fi fekk boddikonte ci biir xeet mu dindi ko indi kenuk maaso ñëw na fi fekk fi ay bidaa yu ñu rafetaloon lool ba boole ko ci diine mu dindi bidaa yooyu indi sunna sunna yoo xamante ni fa tabarakallahu ca yonent ba rek ngay delluwaat gis ko nde rëccoon na sax borom xam-xam yi rëccoon na sax taabic yi waaye ba mu ñëwee mu dekkalaat sunna yooyu mu indi ay xutba nag moom Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam di ci wax ak jaam yàlla yi di leen digal di leen tere wax jullit bi jikko ya mu war a làmboo wax ko it fa tabaarakallaahu la mu war a sori boroom kër gi mu wax ko taxawaayam ci biir kër gi soxna si mu wax ko taxawaayam ci digganteem ak boroom këram kilifa diine bi walla kilifay àdduna bi mu wax ko moom taxawaay ba mu war a am fa tabaarakallaahu ci njaboot gi fàttali ñu sunuy responsabilité collective waaye fàttali nu sunuy responsabilité individuelle kon boobu ba tey ñi ngi ci ànd ak yéen ci benneelu xutba bi ci ñaareelu xutba bi ci ñetteelu xutba bi ci ñeenteelu xutba bi ci juróomeelu xutba bi ba ci juróom benneelu xutba bi nga xam ne àllarba bi paase fa tabarakallahu ci lañ leen ko doon firil te sanga bu tedd ba Seydina Imaam Ilaah il yu doon wax taxawaay bii kilifa diine war a am ci biir diine ji jikko ji mu war a làmboo ci ak lawet ci yaatal malaanum njëggaleem ci ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekk ci ginnaawam woyof gi nga xam ni war na ko amit ci biir njaboot ga ak it dudd gu mu war a dudd àdduna ak it naka la leen war a seen mbiru diine naka la war a yittewoo seen mbir c'est quelqu'un qui doit servir la communauté mais il doit pas se servir de la communauté c'est quelqu'un qui doit servir

ndax yaa ngi leen koy yëwénalal ndax yaa ngi leen di teg ca yoon wa ndax kilifa diine gi mooy ki yàlla yee ki yàlla ubbi ay xelam ba mu gis lu njaboot gi gisul kon dafa war a am taxawaay bu mu war a am ci kanamu njaboot gi kon fa tabarakallahu ñu ne woon tey nag fii ci daara ji balaa ñuy jàll ci xutbay seydina isa ruullaahi alayhi salaatu wassalaam ñu taxaw ak yéen ci ay tomb muy ay laaj yoo xam ne tey dañu koy delloo auditeurs yi ndax sunu boroom dafa dogal léeg-léeg ay auditeur woote wax ay point yu am solo yoo xamante ni ñëpp dañ ciy jariñu kon auditeurs yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yi FM moo tax tey dañuy teel a ubbi antenne bi ci auditeurs yi fa tabarakallahu ngir ñu jox ñu seen xalaat ci ñetti tomb yi ñu leen di bëgg a laaj ñuy fàttali ne képp ku bëgg a woote mën nga ñu jot ci 88

ci xutbay sayidina Limaamu yi alayhi salaatu wassalaam kooku mooy laaj bi njëkk ñu baamtu ko yéen bokk jullit yi ñuy déglu lan mooy seen jàngat ci xutba yi nga xam ni yéen a ko doon déglu muy xutbay Seydina Limaamul Mahdi yu alayhi salaatu wassalaam laaju ñaareel bi mu yen jikko la jullit bi war a am ginnaaw ba mu jàngee xutba yi jullit bi gannaaw ba mu jàngee xutba yi am njàngin nag bari nay façon mën nga jël sa téere jàng ko directement ci arab mën nga jël sa livre jàng ko ci traduction ci langue bu mu mënti doon waaye it képp koo xam ni it fa tabaarakallaahu ba ñu tàmbalee ba tey waxtu wi bu jotee yaa ngi jël sa rajo di déglu boobu it yaa ngi jàng kon gannaaw ba jullit bi jàngee xutba yi nga xam ni mooy xutbay Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam ban taxawaay la war a am ci digganteem ak boroomam waaye ban taxawaay la war a am ci digganteem ak moroomam muy ñaareelu laaj bi ñu baamtuwaat ko yan jikko la jullit bi war a am gannaaw ba mu jàngee xutba seydina limaamu alayhi salaatu wassalaam ci digganteem ak boroomam ak it ci digganteem ak moroomam ñetteelu laaj bi gis nañ ne seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci xutba yi ne képp ku dégg na nga jotal bari na ci xutba yi bu koy tëj dafay wax ni képp ku dégg na nga jotal ñi nga xam ni teewuñu fi woon ci jamono ji nga xamante ne nii moom la doon waxtaanee ak jaam yàlla yi ci xutba bi waaye nag ñuy laaj jaam yàlla yi ne leen kon ci jamono ji naka la nu war a jotale xutba yi Seydina Limaamu yooyu ci jotali boo xam ne dina gën a matale kon lii fa tabaarakallaahu mooy laaj yi nga xam ni. tey indil nañu leen ko yéen mbokk jullit ñi nga xam ne yéen ñuy déglu yéen ñi soppee jàmmalaay FM yéen ñi nga xam ni fa tabaarakallaahu àllarba bu jot ci waxtu wi di ngeen nekk ak ñun fii ci daara ji fa tabaarakallaahu ci firi xutbay seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wassalaam tey ñu bëgg a ànd ak yéen ci jàngalante ci tomb yooyu fa tabaarakallaahu ñuy xaar ci yéen fa tabarakallahu ngeen indi ci ay contribution yoo xam ne jullit ñëpp dinañ ci war jariñu kon ñu jël kaddu gi di ko jox oustaz momit it seenu laay ngir mu sànn ci ay kaddu ba noppi ñu doog ubbi antenne bi déglu mbokk auditeur yi kon oustaz bismillah alhamdulillah jërëjëf muxaddam Ababacar Laay yal na yàlla nangu kàddu yi te barkeel ko te yokk fan wi ak xéewal gi comme ni mënu ko baaxee rek tey noonu la ñuy ànd ak yéen si waxtaanu firi xutbay seydina limaamul mahdi alayhi salaatu laaj yi noo ko déggandoo noonu mu leen ko laaje tey noonu lañ si fas yéene ànd ak yéen ngir Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu lépp loo xam ni dafa yéwénal jaam bi ci diggam ak boroomam andi na ko ci façon bu mu mën ci doon loolu tax mu wax mag ñi bind ba fi loolu di daw ba tey comme ni ko sang bi waxe ah, képp ku nga xamante ni rek dégg nga ak noo ko mën a dégg rek mu laaj jàngat ba nga xam ni war na nu war na nu nu jàngat ki ngir mën a gën a defaraat suñuy diggante defaraat suñuy jukko it laaj yi tamit dañu koy baamuwaat rekk ginnaaw bi ngeen àndeek nun ci xutba yi du fenn fa nga xam ni rekk jullit bi mu ngi fay jëm te bàyyi la alayhi salaatu wasalaam waxu fa ak moom kon te ñàkkul ña nga xam ni boobu ba léegi ñi ngi ànd ak nun di déglu xutba yi saa su ne di ko rafetlu di dugg di wax wax ja nga xam ni sax dafa nuy fàttali di dumbali comme mbokk mi paase ni mu ko waxe ci wirda wi moo tax tey li ëpp ci émission bi ci temps bi dañ leen koy jox jox gi leen koy jox nag dafay ànd ak laaj ginnaaw bi ngeen àndee ak nun ci waxtaanu Seydina Limaamul Mahdiyu alayhi salaatu wasalaam boobu ba léegi ana lan moo di seen jàngat si li nga xam ni mooy xutbay Seydina max di alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni defoon na ko si dundam loolu ginnaaw bi ngeen ànd ak nun di déglu xutba ba tey loolu di xutbay Seydina Limaamu lan moo di seen jàngat loolu mooy laaj bu jëkk bi ñaareelu laaj bi mooy bi nga dégloo xutbay Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ana yan jikko la ci jullit bi war a am ba mu ko dégloo ba noppi ci digganteem ak boroomam naka la war a doxale waaye ci digganteem it ay moroomam ak i nawleem naka la ci war a doxale muy ñaareelu laaj bi mu mel ni kon Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam foofu wax na fa lu am solo ba ka ñetteel it wax jamuy wax moom Seydina Limaamu ak ni ko sang bi wubbee sànq lépp nekk yërmande wu jëm ci xeet wi te bàyyi la alayhi salaatu wassalaam nu gënoon a bëgg sax sunu bopp ngir moom ku jubboo ak boroomam la te it deñ di wéetal boroomam te it nekk di tooñ boroomam te nun saa su ne nuy nekk di tooñ sunu boroom moo tax mu indi moo taxit sunu borom def ko yërmande si nun moom it xam na ni moom yërmande la si nun moo tax waxam mu daan bëgg muy mus di law ñépp di ko dégg parce que képp kuy nit sax aajo woo nga waxu seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam waxatuma jullit wala nag layen bi nga xam ni taxaw na ni gëm naa seydina limaamul mahdi yu kon képp ku dégg kàddu yi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam yooyu la mu wax ni ku dégg na nga jotal ci yan anam lañ ko war a jotale ba nga xam ni dana yegg fa mu war a yegg def la mu war a def lépp a nekk ci diine nekk ci sunna seydinaa Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam kon bu ko defee mbokki éditeurs yi loolu tey moom la nu ànd ak yéen di si déglu di taataan seeni xalaat ma baamtuwaat ko rek ubbi leen ligne bi ñetti laaj la bi ci jëkk mooy lan mooy seen jàngat si xutbay Seydina max Mahdiyu ñaareel bi mooy yan jikko la jullit bi war a am gannaaw bi nga xam ne déglu na xutbay Seydina Limaamul Mahdiyu si digganteem ak boroomam naka la war a doxale si digganteem ak ay moroomam naka la war a doxale ñetteel bi mooy la bàyyi lay wax ni ku dégg na nga jotal si yan anam lañ ko war a jotale ba nga xam ni dina àgg fa mu war a yegg kon bu ko defee nag foofu la ñuy ànd ak yéen di leen fa xaar di leen fa déglu si 88 628 33 66 88 628 33 66 kon tey si loolu la ñuy ànd ak yéen di leen si déglu rek kon sunu chef nu wax ko mu mel ni tawhid incha allah